hamdi wa sukri liman kulli bihi saara law ridan duna shuqtin inda sarsara jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi am mbégte ànd ak yéen ci li nga xam ne moom mooy Sarsara édition 2021 ñu ngi leen di bu baax a baax mbokk yi di am mbégte Euh, di nekk fi nga xam ne nii mooy bërëb bu sell bi nga xam ne fa mbokk taalibe yëpp daje tey nekk ci diwaanu Mauritanie fas yéene fee ziyaara ci maanaam bërëb bu sell bi nga xam ne Cheikhul Khadim euh, fii la jote woon wirdu Maxuus mu def fi liggéey bu am solo daal di tamit euh, ànd ak euh, mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee fii ci euh, bërëb bi nga xam ne moom la tubbee woon ardu saalihin mbokk yi soxna si moom moo nekk noonu ànd ak mbokk taalibe yi di soxna maam Issa Mbacke ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar ndax bés bi di édition bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee maamam Serigne Massamba Mbacke waaye mbokk di nuyu mbokku taalibe mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ca diwaanu Sénégal am na ci ñoo xam ne tamit ñu ngi fii ci Mauritanie te yegg si wuñ tam ci bër bi nekk ca capital ba di Nouakchott waaye tamit am na ci ñoo xam ne nii ñu ngi fii nga xam ne moom mooy euh, diwaan bi nga xam ne moom mooy Mauritanie. xam naa rek euh, damay daal di tàmbale suñuy tamit euh, interview ci. waaw gis nga soxna maam Faabaloo sunu bàjjan ji sunu yaay ji nga xam ne noo saa su ne bu mu gisee bu soxna si gestoon nday jooram rek gis ko ci wetam mu doon loo xam ne nii macha allah taxawaayam ak pastefam ñëpp xam nañ ko soxna si du wéet benn yoon ci yoon bi ndax soxna maam Faabaloo mi nga xam ne nii tey mën na ne moom mooy léppam sëñ sëñ sëñ Mbaye Diallo Sarr ah. moom it sëñ mbay Sarr ah sëñ Kara ngi noonu nga xam ne édition bi ren maanaam tey sëriñ ma Massamba lañ ko tuddee sëriñ moo du Kara bu sëriñ du Fati Xari ñu ngi koy nuyu di ko ziar xam naa sëriñ Baye Jalle saar moom itam nag moom mi nga nekk xam ne moom moo nekk ci kanam. moom mooy président d'honneur Euhlou Café ñu tàmbaleek moom rek ci euh, maanaam yoon bi nga xam ne nii fa lañ jëm ñu demee na ci jàkka ja jëm tey ban yëg-yëg nga am. waaw a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. alhamdulilah rabbi allahumma salli ala sayyidina wa sallam jërëjëf Xaadim Rasul jërëjëf Cheikh Ababacar Sarr jërëjëf Cheikh Massamba Mbacke ah, waaw yëg bi am mooy yëg bi nga xamee ne rek ah, mooy Serigne Touba li taxoon mu andi ko fii ngir da doon fayeeku si fii ba muy dem da doon liggéey waaye fii la fayeekoo si pay googu nag mu fayeeku moo war a tey suñ jéego yi ñëw fii pour topp jeexi talam yi ndax lam bëggoon ah, la la ko yàlla fayee waaye ñoo ko fi andi woon perte nañu waaye moom tey euh, moom mi ñu feen woon tey xam na ne yàlla yëkkati nay mbiram te dootul fay ba illaa yow mi diini te loolu mooy li ñu fa dajale ndax Serigne Touba daa doon koo xam ne soo ko lebalee ker mu fay la guddi fu la neex xalangu kon nag ñi ngi ñaan yàlla di ñaane soxna Maam Asta Mbacke Ahlu Kafe sama borom yàggal ko fi mu wér maa ngi ànd sëñ Modou Kara Mbacke rakkam waaye tamit eh, man sëñ bay Jëla Sarr ne ci kanam mbooloo mi nekk président de notre ahlu café maa ngi leen di ñaanal yéen waa télé bi ngeen amay télé télé barki borom Touba. Euh, seeti nag euh, soxna si ban yëg-yëg nga am ci boo nekkee ci kanamu soxna si. tey day mel ni tey dañoo war a dekkal Badar bisu tey jii bu doon xare tey ma xam ne Badar dekk na te nu sommes prêts nekk ci ginnaaw Soxna Maam Isa li mu bëgg ñu ànd ceeg moom mooy yëg-yëg bi ñu am fi mu ne mel nañ ñu ay gaynde ñun ñu ay amee amazono ci yoon wi ñun liggéey Sëñ Tuubaa la xam ak ñafe loolu la ñu xam ak liggéey Sëñ Tuubaa rek waaw tey jii yëg nañu loo xam ni moom soxna Maam di benn sëg ci sëñ taxawal fii Arafat Arafat la ñu indiwaat fii taxawal Arafat woo murid yi tey ku xool sa yaram wi ak ni mu weexee nga xam Arafat dekk na. dëgg la rek salaamaaleykum. maaleykum salaam maam Cheikh Ibrahima sëñ Massamba waaw Cheikh Ahmad Cheikh Ahmad tey di lii moom déguisement bi moom moom nga génne ren ci ziar bi waaw wane ne Baay Faal lañ rek lu xew rek maam Cheikh moom moo ubbi bunte ba mën a nit ñi mën a liggéeyal sëñ Tuubaa mën am ngërëm euh, maanaam tamit mbooloo mi nekk sa gannaaw jóge ba Sénégal ànd ak yow benn yoon rawatina ren gi nga xam ne nii ma Massamba lañ ko tuddee mbooloo mi moom dañ leen a mënut a fay ndax daan nañ di feeñal seen yéene waaye raw ren dañ ko tuddee sëñ Massamba ñëpp dañoo gën a wane seen pas-pas jox seen doole jox seen alal ngir cofeel gi am ci man am ko ci Serigne Touba am ko ci Sarsara gi ñu nekk tey jii maanaam tamit euh, am na ñoo xam ne maanaam fekk si nga leen fii muy ci diwaanu Mauritanie ñooñu loo leen di wax. ah ñu gën a góorgóorlu rek gën a jàpp. ndax fii la mbir mi baa nee na tukki bee dama liggéeyi woon bi dama fayi ko si ndax sëñ ndaw yaa ngi ne bërëb bii nii ñi xam ñoo ngi ko fekk si lan nga leen xanaa ñu gën a rek ndax bërëb bi fi la lépp xewe sëñ Tuubaa nee tukki bee dama liggéey woon bi dama fayi ko rendez-vous bu borom joxoon la mu war taseeg moom fii fay ko waaw ndax sëñ Tuubaa bi mu fi nekk nekk fi juróomi ati sarsa ñetti ati sarsaar juróomi ati gama juróomi ati ceyeen jolof fukki at ak juróom njaare muy fanweeri at mu xuus ci guerre bu yàgg te gis bàyyi ca ginnaawam ñoñam bàyyi ca ginnaawam njaboot ga ak mboolem ku ko doon topp waaye mu xuus ba guerre bi jàll mu yenu ndimbalam dellu si Sénégal mu ne man Serigne Touba ku ma sànni ci géej gi defe ne danga may mettital man suñu borom moom ma tàggatal mépp mbir man Serigne Touba damay jixat ci xam-xam di jaamu bi yàlla te yàlla seere na ko. sama ma sëñ Massamba. sama maam sëñ Massamba. yéegu daanaka yebbi woon nga waaye biñ dikkee amatoo beneen yitte. waaw dafa am ñetti cër ci Serigne Touba doomam la ab taalubeem la rakkam la kon ñetti cër yëpp bu ñu fekk fii Sarsara. benn bi rek bu ñëwee day ëpp waxuma ñett yëpp war ñoo fekk fii moo tax amoon nañ ci njortu rafet ni bis buñ mën a def rek bii moo koy dàq màggal guñ mës a def gii moo koy dàq yaa ngi jëm ci jàkk waaw incha allah kii sëñ Amadou Kara moom sëñ Modou Faty Khary di rakk soxna si sa maanaam teewaay tey fii dafa am lu bari lu mu maanaam firndeel yàgg nga fee ñëw mais barab bee nga xam ne nii fa lu ñu doon fa lu ñu jëm di ko ziar si bokkoon nga ci ñu doon taxaw ne bërëb bi dañ koo war a dundal ci yeneen ci loo xam ne war nañ ko fee def noo dundaatee bis bi rawatina bi ñu ko tuddee samaam ren. Euh, sant yàlla rek am mbégte kontaan lool di xam ne sëriñ Massamba moo léppam kanam la jëm. sëriñ Massamba lépp léppam kanam la jëm ndax barab bii biñ koy yëkkati ak ndànd fay fay la woon waaye sëriñ Massamba muslim ci benn dëkk taxawulu fa jàkk moo tax ñoom yëgi-yëgu nii dañoo bokk ci sëriñ ma sàmba ah, bala ñuy def dara nañ fi nañ fi jëmmal loo xam ni néegub yàlla lay doon loolu nag ñoo ngi ci sant yàlla bu baax a baax bis bi ñu tuddee sëñ Massamba it am nañ ci kontante ndax ab délégation bu mag la ñu formé ab délégation bu mag la ñu formé ñu jiital ñu jiital ñu ca ñu ànd ci sëriñ Adama Ndaw mi ak sëriñ Moustapha Dieye ak mboolem daayira sëñ Massamba yi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi seen taxawaay rafet na lool bis bi kawe na suñ jot ndax suñ kilifa yi ñu yabaloon xeeboon nañ lool suñ jëmm ji pour teewal leen fi waaye li fi fekk ak ñi ñu fi fekk tax na suñu xel dal sant nañ bu baax dafay bàyyi suñ sama kàddu suñu aadama ndaw mii nga xam ni suñ seexum suñu Mamadou moo ko yebal mu àggale kàddu yi euh, yaa ngi euh, ñëw fii tey Sarsara euh, ci teewaayu nag ak tamit kilifteefu waa kër Serigne Massamba ak yëpp mhm. mën noonu mën daal yow am nga loo yëg tey ci lu wér ci lu wér mbégte xol bu sedd lool ak yëg-yëgu mel ni dañoo delluwaat bara tey tey ku fi si taxawaay yi xool colog si xone yi laxasaay yu ñi da nga jàppante bar dafa waat mu mel ni ki na tey jii yoonu murid yëpp tey am nañu mbégte am nañu yëg-yëg waaye am nañu yokkute waaye am nañu ndam lu rëy loo xamante ni seen kilifa gu tedd ga moo kam am fi tey mooy Xaadimul Moustapha waaye am nañ ko kan rakkam ju tedd ja rakkam ju mag ja rakkam ju sell ja rakkam ju nga xam ne moom fi duwa ak njàmbaar ga ak góorgóorlu ga ak i maanaam bëgg bëggun sëñ bi muy kan Cheikh Massamba Mbacke borom ñetti kaale yi nga xam ne tey jii lépp lu yoonu murid am tey jii yàlla ak loxo bu Cheikh Moussa Mbacke bu gannaaw Xaadim Moustapha lu war loolu wax ko loolu sembulu murit xa xasida yi sembulu murit mooy xasida yi te xasida yooyu ñoom la ko sëñ bi jagle loolu te fii la doon liggéey ak moom ba mu jagleel loolu lépp nag kon dafay mel ni kenn tey jii yoonu mur yëpp am ndam tey jii kon fa lilahi alhamdu bi nga xamante ne kilifa yi tey di yebal nañu fi ci njiital

la lu mat a ràññee ko la kon ñu ngi sant yàlla mbégte kontaante yëg-yëg bu rëy boo xam ne am nañ ko tey fay la alhamdu kon nag sëñ Touba jërëjëfati sëñ Touba jërëjëfati sëñ Touba jërëjëfati jërëjëfati sëriñ Touba jërëjëfati sëriñ Touba jërëjëfati Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul mbokk yi euh, kon rek gis ngeen ko noonu ñi ngi jëm ci bërëb bee nga xam ne moom mooy euh, jàkka ji nga xam ne ni euh, waa fédération bi nekk fii nii nga xam ne ñoo ñoo ci muri Mauritanie ñoo ko daal di waajal euh, ñu fas yéene fee ñëw nag nga xam ne nii def fi soxna si tamit indi fii na benn barkeel bu am solo boo xam ne nii mi ngi jëm ci liggéey euh, jàkka ji nga xam ne nii tey mën noon ne maanaam euh, symbole la boo xam ne nii Ah, bu bu am solo kon nag mbokk yi ba tey vingt 28 pro tamit ànd ak yéen euh, ci li nga xam ne moom mooy xew-xewu ziar Sarsara ren bi édition 2021 mu nekk euh, le vingt cinq euh, juin ci ci xam ne moom mooy ci Mauritanie fii nga xam ne nag moom la ñu jëm. bërëb la boo xam ne nii bërëb bu yéeme la parce que ñu ko tàmbalee woon métti woon na trop euh, waaye nag euh, ñu ngi am mbégte amoon nañ yéene defal leen direct euh, bi nga xam ne donc moom lañ fi teewee waaye xam ngeen ne lu jëm ci wàllu tamit réseau beeg ak zone bi ñu nekkee lu toll ci téeméeri kilomètre ak juróom-ñett fukk ak juróom moo nga fas yéene ko couvrir si. ci zone boo xam ne nii doo bala ngay gis réseau rek wala bala ngay gis loo xam ne maanaam di nga jumtukaay la pour mën a diffuser day xaw a jafe lool kon nag mbokk yi ziar baa ngi noonu jàkka jaa ngi noonu ngeen di gis euh, fas yéene fa jëm ànd ak soxna si mbooloo mi topp ko sëñ Modou Kara soxna maam Faamaloo ñoom ñoom ñëpp teew ànd ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ahlu café bi nekk fii ci diwaanu Mauritanie kon nag mbokk yi dañuy ànd ak yéen ci ziar yi. bismillahi fii niin ak daala yàllaaw sawi baqaa abin bi fiik ya allah ya man lawoo al-amru ya man la sharika lahu wasi wa ma lil waad li fiik ya allah wajatuka al-yawma ya رمان منتديا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو برامتي ak seen bëgg-bëgg lañ ko taxawalee yéen ji ngeen am ci jumaa ji bëgg-bëgg yi ngeen am ci liggéey bi moo waral ñu defal lépp ngir jàppale leen ci topp seen ginnaaw nag ba yàlla suñu borom dogal mu mu noppi ba ngay ñëw taxawee ko nii ñu koy ñu jox caabi Cheikh Mahamadou Mountakha ñu parce que yéene ànd ak yéen ba keroog mu yegg xam nañ bu baax sa tolluwaay ci liggéey bi xam nañ tamit li nga yéene wala moo waral ñu jël suñu lépp ñu tamit fas yéene ànd ak yow lii yëpp di jàppale la ci liggéey bi la lii nag jumaa ji mooy plan jumaa ji jumaa ji bu noppee incha allah lii la ñuy yéene mu mel ko lii nag mooy début bi nga xam ni moom moo war a liggéey jumaa ji un million cent vingt mille quarante cinq quarante cinq millions yi moom mooy liggéey jumaa ji jumaa ji dañuy gis ñu koy liggéey léeg bu ñuy ñëw di indi oto indi bagage yi dañuy indi ay jafe lool ci wàllu transport bi léegi ñu xayma nag li koy liggéey ak wàllu transport bi yëpp moo nekk cent vingt huit millions yi quarante cinq millions. léegi sos cinquante trois yi moo nekk maadara bi nga xam ni moom la ñuy liggéey defal nañu woon sax moo nekk nawet jëm bu njëndal ga waaye danañ fa yegg waaye maadara bi li ko war a liggéey mooy million mooy millions mooy maadara bi. hébergement mooy kër Sëñ Tuubaa gi a fi nga xam ne bu màggal dikkatee gan ñi bu dikkee mën nañ fi nekk dafay dal lépp ngi ci biir prévoir nañ ko ay wanak daluwaay tëgguwaay lépp a ngi ci biir. moom tey moo nekk ni 64 euh, millions moom moo koy liggéey léegi nag lépp lépp lépp lépp liggéey jumaa ji yeeg euh, kër geeg lépp lépp total bi moo nekk nii. 245 millions 45 mille moom moo koy liggéey moo nekk noonu waaw. waaw léegi bi moom mooy plan juma ji bi nga xam ne bi ñu ko liggéey pare bi ñu ko modifié waat pour bu noppee xam nga léegi première phase bi la léegi nag bii mooy deuxième bi. maxdara bi lép mi ngi ci biir boo gisee lii mooy jullukaayu jumaa ji euh, jigéen ñi amutoon fii nii léegi nag bi ñu ko yokkee. gisa jigéen ñi tamit comme yow saa boo dikkee da ngay soxla di waxtu wi ak di jule yooyu léegi nag moo ñu yokk ci lii nga xam léegi bi mooy bu góor ñi bi mooy bu soxna yi lii mooy li wër ci ay garab yi ñu fi naal seen ko def pour mu mucc ayib daal lii mooy lii mooy plan ji photo bu nekk nag am na plan kii moo kii ñoo ànd maçon yi koy liggéey ñoom xam nañ lu ne la ko war a génn ak la ko war a liggéey plan moom moo nekk nii mooy plan jumaa ji. sëñ bi la wala CFA la. lii CFA la. 245 millions CFA. CFA la waaw CFA la. waaw maanaam 245 euh, millions yi boo xoolee liggéey bi xam nga tàmbaloon na bu yàgg waaye ginnaaw bi tamit am na mbokki daayira yoo xam ne ak commission boo xam ne moom la sëriñ bi taxawal ñu fas yéene dabu lu bëri loo xam ne jot jot ci a dugg waaye 245 millions yi da ngay mooy li a def ci jumaa ji. maanaam dañoo xayma li ko war a liggéey lépp lépp bi mu tàmbalee ba fii mu nekk nii am na lu ci jot a dugg nag ba liggéey moo war a mu toll nii mu toll waaw baax na. day ànd ak plan am bi moom moo nii léegi nag bii li mooy maquette bi nga xam ne moom lañ defar boo dee xool jumaa ji nii lañ ko programmé ci maquette bi léegi lii moom lañ la wan fële léegi na le maanaam lii mooy jullikaay jigéen ñi léegi liñ mébét nag mooy ginnaaw bu yàlla dogalee jumaa ji noppi maadara yi ñeent lañ ci programmé. ñeenti benn bi ne juróomi koñ lay doon maadara bu nekk day am eh, salle de bain ci biir ñaari salle de bain benn bi pour ñi nga xam ne ñooy jàng xam-xam nekk jël maadara yi sëriñ daara yooyu bu ko yitteewoo foofu lay féetewoo beneen bi mooy ñi nga xam ne ay eh, donga daar lañ wala ay gan ba soxla toilette yooyu foofu la ñuy duggee am ñaari porte lay doon porte bii ni bu duggee ci biir lay jëm ci salle bi mooy bi nga xam ne dugg génn intérieur extérieur moo nekk ñeenti maadara yi lii moom moo nekk Sëriñ Tuubaa gi la waxoon ba léegi moom mais dañ koo analysé dañ ko dañ koo programmé nii waaye du taxalu ak jumaa ji du susog moom waaye dañoo programmé nii noonu la fay nekk léegi ñaari appartement yi ma la waxoon moo nekk nii bi mooy bu góor ñi mooy bu jigéen kaw gi ni suuf gi mel noonu la kaw gi mel moom moo nekk nii sang yi Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wasallam di sant di sunu yaakaar tey ëllëg Serigne ñu ngi ñaanal baax Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na ko suñu borom doole yàggal te may ko wér ba mboolem li mu naa la liggéeyal Serigne Touba lépp mu def ko te ñu ànd koog moom noonu tam lañ koy ñaanale Babul Mouridina Serigne Cheikh Jëmbu Fall ak mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp di ko ñaanal mu Serigne ma Mazamba mi nga xam ne ren bis bii dañ koo seex ma Mazamba te ma sàmba day rakki sëñ Touba di mbokkam Serigne bi indi woon ko gànnaar doon fi liggéeyloo mu liggéey fi liggéey bu rafet boo xam ne ba léegi tey ak njabootam moo tax ñu am cër bi nu am te murit bu nekk ameel nga Serigne Massamba njukkal ndax li ko waral mooy. sëriñ Tuubaa daa wax ci ji naan ne loxoy neen akum nooflaay baaxut ci ab murit te xaside yi nga xam ne ci la li ëpp ci murit yi di jeexal seen waxtu xaside yooyu buñ ci jotee tey Seex ma sàmba moo tax mu ñoo jot ci kon Seex ma sàmba tey suñu demee ba Sarsara ñu màggal ko fukki yoon ak juróom-ñaar ñu tuddee ko ko ay sëtam ñëw teew ci ndigalal jëwriñam di sëriñ Moussa moom sëñ sàmba kon bu ñu fi fekkee mbooloo mi ci ndigalal soxna si war lañ leen a gaaral bara bi ñu nekk ñun ñëpp maase nañ xam ne Serigne Touba di ko tubaab yi di indi gànnaar ñoom dañoo am lu tax ñu indi ko fi comme rek bañ koy yóbbu Gabon la taxoon ñu yóbbu ko fa ndax bañ koy yóbbu Gabon dañ ne woon dañ ko bëgg yóbbu ci place boo xam ne même ñii di xelli café gi bu ñu mënee bàyyi moo gën bañ pare. sëñ Tuubaa bañ ko yóbbu Gabon dane li tax ñu yóbbu ko Gabon mooy dañ ne woon Gabon day barab bu naqaree dem boo xam ne suñ ko fa yóbboo kenn du ko fekk beneen bi ci des mooy barab bu naqaree dunde la ndax dafa dafa bari ndox te ab bawol bawol xamul ndox dafa bari tam yuy màtte am na ay îles yu yoo xam ne dam kenn mënu faa dem kon suñ ko fa yóbboo taalibe yi dootuñ ko gis duñ am benn communication ak moom yoonu murid day jeex loolu moo tax ñu yóbbu ko Gabon te moom léppam di yàlla ak yonent bi yàlla ak yonent bi jàppale ko ba mu daan tubaab yi ba mu leen daanee nag ñu xam ne daan na leen lañ ko waajal ngir mu ñibbisi bi mu ñibbisee nag ñu dajewaat wax ne nañu xoolaat man pexe lañuy defaat ci moom bi nu xoolee pexe mi ñu ne pexe mi ci gën a baax mooy ñu yóbbu ko fu ay julit nekk ndax benn julit ci biir ñu weddi yàlla day yomba fees ndax buy julli ñëpp gis ko suy def lu baax ñëpp gis ko waaye buñ ko yóbboo foo xam ne buy julli moom mbooloo ñooy julleendoo suy woor moom mbooloo ñooy woorandoo te ñooña ñoo ko gën a jege yonent bi ci ak bokk ba pare seeni der daa xees te naar yi amuñ benn complexe kon sëriñ bi dana am complexe ngir der bu ñuul bi ci bu ñëwee ci biir naar yi du mën a imposé wu kon nag nañ ko yóbbu suuxal ko ci biir naar yi muy nañ koy waxee ab kuruñ boo xam ne dañ ko tàbbal ci biir naar sëriñ bi nag wax ne tubaab yi bi ñu waxee loolu ne dañ ma yóbbu ci biir naar yi ngir sànq ma ci seen biir fekk na yàlla ci seen biir la ma yëkkatee loolu Sëñ Tuubaa wax moo tax mu ne tukki bi ma cent 1313 ak tukki bi ma tukki cent 1321 ku leen gam-gamle jàpp ne ñoo ab dof nga bu xamul dara ndax tukki bee dama doon liggéey bii dama doon fayu si nee na baykat su jiyee di bay toolam di ko toppatoo ba yàlla def meññat meññat mi nag bu ko récolté mu ne bu góobee meññetam moo ko njabootam dañu koy xiwloo moo tax sëriñ bi wax ne gànnaar kon dafay ñëw ngir lan dafay ñëw ngir maanaam fes ci biir ñoo xam ne ñoo këpp doole ci fànn yëpp ci zahir waaye du ci baatin nag léegi nag sëñ Tuubaa ne kon troisième victoire am troisième victoire am sëñ Tuubaa ñetti victoire la am ñetti victoire te nit man ngeen a bëre nga daan ko ngeen bëriwaat mu daan la nit man ngeen a bëre nga daan ko ngeen bëriwaat daanaat ko ngeen dem troisième fois mu daan la waaye sëñ Tuubaa dana Tuubaa bi am naa ci ñoom ñetti victoire ñu ne ko ban ban mu ne man rek maay der bu ñuul bu mas a daan ci kaw suuf der bu xonq loolu amul ci taarix na ñëpp jàng téere yi muy benn ñu ne ko ñaareel bi ban la mu ne maay ab julit bu mas a daan ay nasaraan yu bare baree bari te maa ngi leen daane ci seen i dëkk ñu ne ko ak ban mu ne maay kenn ku daan mbooloo moo tax sëñ Moussa Ka wax ne Serigne tubaa yow kenn nga ko wecci mbooloo bi muy ñëw fii àndul ak kenn mag ñi ginnaaw gi lañ ko fekk Cheikh Sidi lañ ko booleeloon Cheikh Sidi danaan sàmm ak jur butuli mi la dajeeg moom waaye ay ay doomi baayam dañ ne ko Serigne Touba danger la boo xam ne bu ñëwee ci seen biir bokk tubaab yi duñu danañ ñu def lu naqari kon nag indi gi ko fi indi tooñ nga ñu ba mu ay bokkam ba génn Butulimi dem dëkk bu ñuy wax Maymoun bi sëñ Tuubaa di ñëw Butulimi Cheikh Sidi dem na Maymoun ngir xuloo gi mu xuloo bokk yi waaye doom ju tudd Ahmed la yónni ne ko loolu ma sa baay nee ko egsi naa ñu teg ca ñetti fan Cheikh yi ñëw bi mu ñëwee sëñ Tuubaa ne ko lu tax fekkuma la ci dëkk bi mu ne ko samay doomi baay ñoo xuloo ak man xuloo bu metti njir li ngay ñëw sëñ Tuubaa ne ko kon nag am naa pexe man yow boo amul pexe Cheikh Sidi ne ko lan mooy sa pexe mu ne ko ardullahi wasia suufu si yàlla daa nañ xool fuñ mën a nekk te duñ leen yàqal dara ngir bañ a yàq ak bokk Cheikh Sidy ne ko kon nag am naa pexe man itam sama pexe mooy man damaa yor ak jur di sàmm jur gi jur gi itam dañuy soxla ñaari mbir ndax ku ne ku naan sàmm xam nga ne sàmm dana soxla ñaari mbir mooy soxla naa ndox soxla naa ñax kon nag nañ dem ci àll bi yow nag danaa la jox xorma bu toll ni su ma xaymaa xaymaal la nga ne ci sa xayma di jaamu yàlla ma ne ci sama xayma di jaamu yàlla samay surga di sàmm sama jur suñu toogee ba ñax mi wàññeeku ak ndox mi ñu xool feneen fuñ mën a dem bi ñu defee noonu ci gàttal sëriñ bi gàmmu la ñëw gàmmu gàmmu la ñëw Murtani rakk ji gàmmu rakkaat ji gàmmu ndeyu koor maamu koor baraxlu koor set mois la am ci àll bi di wëndeelu Cheikh Sidiya huitième mois bi la ñëw Sarsara waaye lan moo ko tàggaleeg Cheikh Sidiya ci càmm ga Cheikh Sidiya da koy wax ne ko dañoo war a màng sëñ Tuubaa ne ko man sañu maa màng te laajuma sama borom ba mu d'accord ndax man du ma def lu antu ndiil sama borom Cheikh Sidi ne ko xam naa ne jubóo nga ak sa borom kon laaj ko ab diir sëñ Tuubaa ne ko sama borom nee na ñu màng ànd naag seex Sidiya màng lu mat juróom benn weer waaye ca juróom benneelu weer ba ca baraxlu wa ba nuy bëgg a màng sëñ Tuubaa dina sama borom dafa maa tere keroog ne ma bul màng ànd ak Cheikh Sidiya loolu nag su ma ko waxee danaa wax ne loolu mooy ilham ci waliyu ni yàlla di waxee waliyu mooy ilham di ko wax kàddu yoo xam ne du ko jaarale ci yonent bi du ko jaarale ci jibril waaye da koy jox directement mu dégg ko loolu mooy ilham da koy ilham ne ko tey bul ànd ak Cheikh Sidiya waaye beral sa yoonu bopp sëñ Tuubaa nag day borom xam-xam bu jëfe xam-xamam ba pare tam am teggin moo tax bi may wax sëñ Cheikh Sidiya ne ko du ma ànd ak yow tey waxu ko ko ne ko du ma ànd ak yow rek waaye da koo yónnee aw bayit bayit wa mooy walaw tal xiyaara la maftarax naa walakin laa xiyaara maa li ashishi su ma doon tànn ku ma àndal danaa continuer di ànd ak yow waaye sama borom moo ma tere may ànd ak kuy wër ñax ak ndox ndax yow Cheikh Sidiya ñax mu dundal sa jur ak ndox muñ naan ngay wër man yàlla ak lay lay wër te sama borom nee na ma naa dem ci barab boo xam ne sarsaara la tudd barab boobee yonent bi dana ma fekk ak boromam bam ba loola amee nag Cheikh Sidiya doyloo yàlla waaye dafa am lu fa xew taalibe yi Cheikh Sidiya loolu dañ koo ñaawlu lool daa di ñëw ci Cheikh Sidiya ne ko sëñ Touba mii nga xam ne Touba bi yee ko jël jox la mu sëb taalibe di nit ñuul nga digal ko ma bañ loolu ñun xamuñ ko sëñ Tuubaa nag bindaat weneen bayit pour wan leen ne leen Seex Sidi du kilifaam baana li kulli man la uma xoolu an na wasilati uwa rasulu ko xam dara ci yàlla da xam xeli ne man Ahmadou Bamba ma benn sëriñ bu du rasulullaay ndax garab gu la la may ker te ku du rasulullaay yaa ngi sama ron Seex Sidi nag wax taalibe mi ne leen da ngeen a waaye kii moo doon rasulullahi antal murabbi kama rabal aminu bihi arfan bi arfin fa maa fil gila Cheikh Sidiye jël ak juróom ànd ki taalibe màng sëñ Tuubaa toog ci àll ba la des ca baraxluwa ba koor ga di jub mu delluwaat butul mi kon butul mi yoon la fa dem wooluwaat Cheikh Sidiye ci àll ba mu ñëw mu ne ko takkal ma gileem te ma a dagg sa yoon soo ma takkalee gileem ba pare man ngaa dellu ci àll ba man maa ngi dem dëkk bu ñuy wax ba àll bu ñuy wax Sarsara gileem gu weex lañ ko takkal ci butul mi ci digg ëtt bi la gileem gi jógee fa gileem ga jógee ba mu jógee ak tàndarma fa sax mu mu bëgg a génn ca buntu bu mag ba Cheikh Sidiye wax ne nañ ko daggal buntu bu ndaw ndax fi ñëpp jaar sëñ Tuubaa waru fee jaar ñu daggal ko buntu bu ndaw naaree def fa ay gàll yoo xam ne daanañ ko siyaare ba mu ratax gileem googee nag daa mel ni gileemu yonent bi jóge woon Màkka dem Madina war yonent bi bi mu àndeek saxaaba yi ñu gàddaay jëm Màkka ñoom ñooy almuhaajiruun ña ñuy fekk ñooy al ansaar waaye almuhaajiruun yi ñii dañoo bàyyi seen i soxna ñii bàyyi seeni i magasin ñii bàyyi seen ndey bàyyi seen yaay yàlla leen gënal loolu lépp dem ànd ak bi waaye nag lansaar yi dañoo gàttandu yonent bi ci buntu dëkk ba di ko tatagal waaye dañoo xëccoo yonent bi ku ne na sama kër lay daal ndax ku teddee nii du ma ko baye kenn yonent bi ne leen lii mën naa jur histoire ndax buñ ma xëccoo kenn ku ne ne moom lay dalal histoire day am kon nag bàyyi leen gileem gi yàlla ombat gileem gi ba fu mu ko wàccee rek foofa la war a wàcc gileem gi ay dox di dox di dox ba yës fi mu yës fa lañ tabax njàkk yi mujj ma yi njëkk ci madina sëñ Tuubaa tam ne Cheikh Sidiya gileem gi jarul muy am kenn koy ommat yàlla dana ko ommat ba wàcceel ma ko soofi Sarsara kon sëñ Tuubaa moo indi boppam Sarsara ci tegtalub suñ boroom bi mu ñëwee fii nag ñeenti barab la fi def muy kër kër mun ta ñàkk suñu balaa nee na picc sax balaa dëkk day tàgg moo tax suñ fu masanam day def kër bi kër gi pare mu def jàkka ji waj al bu yuutii kullaha masajid yaa naa fiyan man laay kunu zajida yow yàlla may ma fu ma wàcc rek mu am moo tax mu def jàkka ja mu def tam barab bii barab bii nag ab diiwaan la diiwaan mooy firi rek fu ñuy waxtaane moo tax moo tax ñu tànn waxtaane di ko defee fii lan moo tax suñu tubaab defoon fii diiwaan bi ñaari mbir la bi ci jiitu mooy ca weeru koor wa ca guddi ajjuma ga ca laylatul xadar fii la ko rasulaay fekk te sëñ tubaa dane rasulullahi géntuma ko jëneeruma ko yàlla daf ma ko woon nim nim nim ko bindee moom itam mu gise ma ni ma yàlla binde sëñ tubaa ne suuf soo señu daje maag rasulullahi na ngeen xam ne mooy suuf si nga xam ne pak bi gën a tedd ci kaw suuf la ndax fi la rasulullahi daje ak xaadimu rasulullahi rasulullahi mooy ki gën ci mbindeef yi waaye xaadimu rasulaay mooy mooy ki mën ci mbindeef kon ngën gi mbindeef ak man gi mbindeef fii lañ daje yàlla jox ko ab kado boo xam ne sëñ Tuubaa moo wax kado bi dane naajeytu rabbiya bi sahri ramadan sahril amaani wal muna wal fayadaan dane yàlla jox na ma kado bu rëy ci sama dund boo xam ne mi ma ko jox ca weeru koor wa waaye nee nag kado boobu su fekkoon luñ teg la di ko giiroo mboolem ñi yàlla bind ku ne mën nga ci jël sa wàll te du jeex ajran kabiran wa sawaaban wa jaza wal waxdu lii fii ramadaani na jaza loolu la wax mu ne nag yonent bi ne ko sa borom nee na lam la digoon gabog mi ngi nii sa wird wii ku ko jàppati di ko wird moo gën ku ko wirdut te ku ko jàppati di ko wird su ko neexee dana tabbi aljanna bu ko naqaree dana tabbi aljanna dar ko cay dollil ne ko ku amoon weneen wird woo jàpp soo jotee wii boole leen ñoom ñaar soo ko mënee boole soo leen munta boole bàyyil wird woo weete jàpp wii te juróomi fan yi zawaal nag la génne wérdi wi jox ko ab naaru gànnaar wax ko ne jàppal wérdi wi kon loolu mooy di mooy li xew fii waaye nag la ca dolleeku te mat a xam mooy ay xew-xew yu bari xew bokk na ci xew-xew yi bi mu ñëwee rek dafa woolu sëñ Mudu Moustapha ak sëñ Fallou ne mënu ma leen a sori ndax gaban borom daaru leen bàyyee woo waaye dafa am lu war a def ñoom loo xam ne coono ba nekk gànnaar ni ma ci amee noonu la ci samay doom war a amee kon nañ ma wool sëñ Fallou ak sëñ Mudu Moustapha moo tax sëñ Moussa Kane bambaa ngi leen tarbiya fii sarsaara ak jërraar yi ni wàllan zaara da leen daan jox téere xam-xami naar ñu di ko jàng waaye sëñ Tuubaa da leen di wax ne leen yéen daal fasoo leen jàng rek bu leen naar yi saa bind na xool baat bu njëkk ba ba ca bu mujj ba mokkal gi ak bañ a gi maa ko warloo loolu leen leen wax murtani du bara bu bay waaye sëñ Tuubaa dogal na leen fi ab tool ne leen tool bi xam ngeen lu ma ci jublu ñu ne ko déedéet mu ne ngeen di xëy rek di ca rux-ruxi waaye su ngeen xëyee ba wàcc yor yor maanaam suba ba yor yor defal naa leen ko juróom-ñetti fan yu nangu semaine buñ nangu kon fii la ko fekk waaye tam fii am na xew-xew beneen bu fi xew mooy ban sëñ Touba fii la lebe njël maa ngi ci njël ba di ko leb mag ñi amuñ dara luñ lekk am na koo xam ne sama sëriñ Cheikh Moussa mu Cheikh Abdoul Ahad bëkk néegam bi den rek moom maamam fii la xiife ba àgg ci ne ku ma reggal tey ma faj sa aajo am meneen mag mu génn ne ku diw goreel rek ndax fii pajuk aaju jëfewu fi rek rek a fi jafe ndax Serigne Touba ngi fi te kum xool sa aaju faju am doomu nijaayu Serigne Touba doomu nijaay ak doomu bàjjan dañuy kalante moo ñëw ci sëñ bi ne ko Mbàkke doomi jaambur yi buñ fi dee yaa koy lijjanti mu ne ko diw ku fi dee yàllaa ndax yàllaay reye waaye woowuma fi kenn ba may jóg di ñëw man képp ñëw ku ma fekk si bëgg nga ma fekk see ku ma fekk si ci ak bëgg nag loo fi daj nanga ko muñ ndax saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine ana ñi xiif ñëpp ne ko Mbàkke dañoo xiif mu ne ñëw leen ñu ñëw wër sëriñ bi sëñ bi di waxtaan ak ñoom ci jaar-jaari saxaaba yi ba mag ñi jug ne ko mbàkke sa waxtaan wi regg nañu te waxtaan wi mandi nañu xiifatuñ mëratuñ mu ne takk leen takk leen biir yi te te jublu seen borom yuqimu salba li kay tuuti xaraba loolu la leen wax keroog waaye fii itam la lebeen naar dépense waaw xanaa gisu leen ab julit bu mën a lebal mbokkum julitam lu tolloo ñetti fan yu dunde ñuy wër di wër ba am ko ko nangu ñu ñëw ne ko sëriñ bi nee na nga lebal nu ñetti fan ñu dundee mu leble ñetti fan ñetti fan yi jeex sëñ Tuubaa ne dellu leen ca moom ba xam dana ko nangu ñu dellu mu leble muy juróom-benn fan dund bi jeexaat ñu ñëwaat mu war a nekkaat juróom-ñeenti fan mu ne duma ko man tey sëñ Tuubaa ne nañ xaar yàlla dañoo toog ba takkusaan sëñ mën dumbe yebal yebal ñetti gileem gii gii daa sëf ba fees gii sëf sangal ba fees gii sëf muuraake ba fees ba ba ba ñetti gileem yi yësee sëñ Tuubaa dane naar bi ñu lebaloon juróom-benni añ yi nañ ko dem fay ñu dem fay ko mu ñëwee mu ne nañ ci génne ñetti añ yi ko daan lebat yéen ko daan bañ ñu génne ñetti añ ya mu ne li des ci gileem yi dem leen jox ko ko moom mi wut addina ñu xaar yàlla. moo tax gileem ak kii sëfam gileem ak kii la daan jox naari gànnaar yi lool sëñ Moussa Ka ko wax naar yaa ngi yalwaan ak a sëriñ buñ ñu xamoon nag dellu fa jaar kenn talatul loo joxe ñaar naar sëriñ bi geesul xal wul la la gëddoom ma gisabam la daan la daan jox naari gànnaar ya baba di géej dong yaa di jël wu dee ci loola du muurun tan نبينا من نور الانبياء ونور رسول الله من الانبياء سنت بزري مكاتب الدزر أخمرنا ميسرا لما زرسات في القرآن والنبي ما جاد لي بالسائر والمخفي أداني لله بالكتاب وبنبي بلا يتاب رب الإلو فيه والنبي أحمد wasilati way nool muhammadu karamati ya kawniya abdullahi xadim abdullahi ibnu abdullahi rasuluna ahmadu saadili ila sala alayhi wa kafa adrala jasa muntaqa xayra jasa fi kulli zaatin wa jasa sëriñ Tuuba maanaam deex ku duy ko sóobu mes bu génnee xam boromam sëriñ bi di géejug yàlla ndax tel ba mel na ñeex sëriñub Cheikh Ibrahima Fall sëriñub Cheikh Ibrahima Fall ndax tel ba mel na ñeex fii fépp sëriñ boo fi lambaaje mbooti biiram moo waaye li ma ci bëgg a dolli mooy waaw. nañ dégloo mu àggale. nañ dégloo waaye li ma ciy dolli mooy coono yi am ci yoon yi mag ñi ñëw loolu ci laa bëgg a ñëw. maanaam yoonu murit yoonu murit ñi ci gën a bari fii la ñu jébbuloo yoonu murit ñi gën a bari fii la ñu yaayante Serigne waaye am na ñoo xam ne jaayante woon nañ ci réew ma waaye dañoo ñëw fi indi seen i addiya ñi fi ñëw indi ci ay addiya ma lim ci ñenn tudd naa léegi sëñ Mandoumbe waaye dafa am ku ñuy wax sëñ Massi Ndongo moo ne woon sëñ tubaa def ma ni sa takk ndeer bi foo jëmati ñu ànd ma yor sa der bi sëñ Touba ne ko Massi Ndongo dellul daaru ma naan xaar ma te xam ne ab taalibi day jëfi ndigal te loo ma sori sori te sa xol jege ma sori woo ma waaye loo ma jege jegeñ te sa xol sori ma jege woo ma yow nag jege nga ma ci xol kon dellul daaru ma naan sëñ ma si si ndongo moomu nag dafa dem sañ ci dëkk bu ñuy wax xabbaan bay fa am at ba at ma jeex lam am ca mbay ma matul dërëm ay fisin la mu mu jël ay ngise di yalwaan di yalwaan di yalwaan ba ba ba mat dërëm bu ron mu mu yónnee ko sëñ fii bis bi nga xam ne ci la indi dërëm bi nag daa fekk maam Cheikh Ibrahima Fall yónnee junni Serigne Touba daal di wax ne woo leen ma fere yi ñu woo fere yi ñëpp ñëw mu daal di wax ne sëñ ma Cissé Ndongo de daa bay yalwaan amul lu may benn dërëm moo xam ne yàllaa ko dogal ci at mi mu yónnee ma ko gànnaar waaye bi muy ñëw Cheikh Ibrahima Fall daa indi junni ma bëgg leen a wax ne dërëmab sëñ ma Cissé Ndongo bi ful naa ko ba mu toll ni junnib Cheikh Ibrahima bi ndax am na yéene ju rafet waaye daa amul doole ju Cheikh Ibrahima am loolu fii la amee waaye loolu am na lu ko gën a metti li ko gën a métti mooy sëñ Màkka Sarr ci réew ma la doxe ba egsi fii ci jotaay bii jox sëñ Touba loxo wëlbatiku daanu faatu. sëñ Touba ma Mamadou Lamine Diop Dagana nee na sëñ Touba woo ñu ñëw mu ne jëlal leen ma Màkka Sarr ma ko ci armée li puufa yi dencal ma ko fa yéen ñi koy yóbbu di ko gunge ci këram gu mujj jéego yi ngeen di dox ba àgg ca bàmmeelam mooy seen aljanna kon ginnaaw ñi ko doon yóbbu ñoo am aljanna ci jéego yi ana moom mi dox ba egsi kon kooku ci gaa yi la waaye itam am na geneen góor yàlla goo xam ne moom itam dafa dafa liggéey addiyam te kooku Mbàkke la sant Serigne Mor Penda Mbàkke la tudd daa liggéey addiyam ba addiyam lew ko mu wut lu mel ni ak ndomba ëw ci addiye ji takk ko ci ndigg li ndax naar yi dogalee juróom-ñaari naar dogale ko di xeex ak moom waaye ci njàmbaar gi ak pësteef bi ak fit wi juróom-ñaari naar yëpp du mën a leen ba indi addiya ji fii ci Sarsara waaye naar yi nag dañoo dagg baaraam bii muy mu déy bi baaraamu sànnikaay bi la naar yi dagg waaye bi mu ñëwee ba Sarsara dafa tàllal sëñ Tuubaa addiya ji ne ko Mbàkke nag fitna am na ci yoon wi mu ne ko ne ji lu doon mu ne ko juróom-ñaari naar ñoo ma kar di xeex ak man waaye nag luñ ma dara lenn rek daal laa xam ne def nañ ko jeexi ci man mooy dañoo dagg sama baaraamu day bi Mbàkke nag baaraam baa ngi nii sëñ Tuubaa ko Mor Penda Mor Penda Mbakke su la neexee ma def baaraam bi ni mu meloon léegi su la neexee ma bàyyi baaraam bi nii mu mel ba bis penc ma defal la ko ab garaat boo xam ne pencam yàlla ñëpp la ciy ñee. ana ñaar yooyu bula ci gënal ana ñaar yooyu bu la ci gënal sëñ ne ko bi ma gënal mooy. Sarsara ji ma ne sarsa foofu laay jeexale muy pas-pasu mag ñi ndax Sarsara ji danga koy wax ñu baree bari soo leen waxee ne leen paas bi fukki junni la liñ leen njëkk wax mooy daa waa waaw ma doomu aadama bàkkaar képp koy jaaxal addina ak àllaaxira bàkkaar baaxul addina ndax day tax a ñàkk ku la ëpp ay bàkkaar moo lay moo lay gën a néew leer ku la ëpp ay bakkaar moo lay gën a ñàkk nit bu setee xolam set suñ borom jox ko lu mu am bàkkaar bu leen jàpp ne day tàbbal nit sawara rek waaye bàkkaar day wàññi leer waaye bàkkaar tam day wàññi wërsëg kon su doon day joxe leer ak wërsëg rek moom ñàkk bàkkaar kon mu doy waaye day tax a tàbbi aljanna moo def sëñ Tuubaa ne fa kullu man xaddama nii aw saara fa najjihi waxfir lahu aw saara képp ku ma liggéeyal wala mu ziyaar man Ahmadou Bamba yow yàlla tàggale ko bàkkaar yi ak bu àllaaxira waaye ndax xam ngeen lan moo def sëñ Tuubaa wax am di wa li man ku lii bii saara lahu ridan duuna suxtin inda sar saara loolu mooy sëriñ bi bi mu ñëwee fii dafay nekk weeru koor ba weeru koor wi jeex kenn toggalu ko kenn joxu ko kenn mayu ko ndox mu naan kenn dimbalewu ko kenn seet siwu ko men na moom ci àll bi ak yàlla ak yonent bi waaye am na wéttal nag ndax assiru maal abraar al abraar mooy waa ahlu badar te nee na waa ahlu badar fu ma mas nekk ñu ngi may wéttali léegi nag bi mu ñëwee fii ca weeru koor ba muy bëgg a jeex waa bani daymaan ñoo ne innamaal muminuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum yàlla moo ne jullit ñi ay mbokk lañ kon nañ dimbalante kon nag damaa bëgg ku bokk ci famille bay dax ñu ànd dajale suñuy addiya dem Sarsara siyaari ji Serigne Touba kon kooka def na initiative bu baax waaye foofu lan mooy kiimaan gi nettali loolu rek du kéemaan gi mooy Serigne Touba kan moo ko xamal ne ko waa bay dax ñu ngi ñëw Abdoulahi mi ngi ñëw bam sargal leen ci ak xasida te gisagu leen bi ñu ñëwee keroog wàcc seen gileem ya àll bi xong curug ak i naar Serigne Touba nekk ci biir xayma bi mag ñi ne ko am na ñuy ñëw mu ne nemmeeku leen ba xam ñu mu ñu ne ko ñii de ay naari gànnaar lañ Abdoulaye egsi waaye Abdoulaye bi mu egsee bi muy laata nuyu sëñ Touba sëñ Touba daa jël xasi rek am di jox ko ne ko yéen ñi nga xam ne laxas ngeen bàyyi ko ci seen i kër ñëw ziar si te yàlla tax yéen faarexu daara yi ni aw saara am di wa shukri yi li man kulli bihi saara lahu ridan duuna suxtin inda sar saara lahu sanaa i wa ridwaani bila shaqatin musqaada li min bani daymaana anshaara waaw ku bëgg Seex Ibra moom da nga déglu moom dama ne maam Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima Fall bi nu indee sëriñ bi gànnaar dafa jëfandikoo mbir moo xam ne ñu bari xamuñ ko muy tubaab yi sax tubaab yi sax daan nañ toppandoo murid yi di tudde Cheikh Ibrahima naan dof mooy dofub sëñ Tuubaa ndax tubaab yi dañ daan wax ne ci rapport sëñ Tuubaa amul benn problème ku neex a waxal la te soo waxee ak moom dalay lay déglu te soo noppee ci ak nit la lay tontu waaye daa am ñaar ñu ko jege ñoo xam ne kenn xamul noo leen di def kenn ki rakkam la ji ñuy wax Thierno Ibrahima Fall daa dëgër bopp kenn ki mooy Cheikh Ibrahima Fall daa dof tubaab yi ñoo wax loolu nee nañ sëñ Tuubaa amul benn problème waaye daa am ñaari taalibe yu naqaree xuus muy borom daaru ak maam Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima nag moo tax nit ñi li ñuy gën a gis mooy. maanaam soobu gi mu soobu woon rek boroomam waaye dama leen bëgg xamal ne fii moo fi jëlee sëñ Touba dama ne Cheikh Ibra Fall moo jëlee sëñ Touba gànnaar te jëlee ko fi ci force waaye ci xam-xam la ko fi jëlee dafa am benn naar dafa am benn tubaab bu ñuy wax Kaplan Kaplan kooku bi bi tubaab yi colonisé Mauritanie moom moo leen fi nekkaloon kooku nag daa bañoon lool sëñ bi ba naan def ay rapport yu ñaaw ci moom waaye bépp rapport ba mas a yónnee ba kilifa yi jot ko. rapport boobu maam Cheikh Ibrahima Fall moo koy démontré moo koy moo koy weddi Cheikh Ibra juróomi at wala ñeenti at yi Sëñ Tuubaa nekk Mauritanie administrativement moom mooy bind ay leetar yuy weddi liñ tuumaal Sëñ Tuubaa ba indi ko fii ci ak nite di leen wax ne da ngeen koo tooñ ñaari yoon da ngeen koo tooñ yóbbu ko Gabon amu leen ndam ngeen tooñaat ko yóbbu ko gànnaar te du ngeen am dam te duma ko lijjanti ci doole waaye ci xam-xam laa koy lijjantee Cheikh Ibra mooy bind ay rapport di ko yónnee ndar ba mujj ñemeetuñoo téye Sëñ Tuubaa ndax Cheikh Ibra dafa indi ay preuve ci wàllu yoon wuy wane ne amuñ benn droit bu ñu téye Serigne Touba gànnaar moo tax tubaab yi lettre bi ñu libéré Serigne Touba lettre bi ñu libéré Serigne Touba Cheikh Ibra Fall lañ ko jox. lettre bi ñu libéré Serigne Touba mu jóge fii ci gànnaar dem ci Jolof lettre boobu Cheikh Ibra Fall moo ko porté Sénégal ba indi ko Nouakchott administrativement ñu indi ko ci Serigne Touba waaye xam nga lu yéeme lu yéeme mooy lettre Cheikh Ibra Fall bi. tubaab yi bind dafay dajeeg leetaru yàlla sun borom xamal ko ne ko yow sab liggéey murtani jeex na yaa ngi jëm yaa ngi jëm ci yéen yaa ngi jëm ci yéen te mag ñi keroog kenn musa dégg ci yéen Cheikh Bass Abdou moo ko ne nee na sëñ Tuubaa dafa dajale mag ñi ne leen sama borom nee na ma waxtu wi ci déwén ci yéen fekk fan mooy ci yéen ñu ne ko Mbàkke ak ci am na ci réew ma sëñ Tuubaa ne sama borom kat maa ma ko xamal waaye man xaw ma ko woon léegi nag yéen ñi fekke waxtaan wi xam nga lu ma séq ak yéen mooy xamal leen ne feek ñuy dem ci yéen kenn du dee loolu sëñ Tuubaa wax xam ngeen lu ma jublu ci loolu ñu ne ko dee leen Mbàkke mu ne damaa bëgg lu ma leen waxati ngeen teg ci bët ni ngeen tegi bët loolu fekk nag am na ci mag ñi ko oppoon bañ koy ragal waaye kooku daa wér perek bañ dem ci yéen baam fa ñetti weer wala ñeenti weer mu soog a faatu bañ koy denc nag sëñ Tuubaa da kii ñu doon denc gànnaar la waroon a faatoo waaye sama borom moo ma téyel ruug bañ dem ci yéen ndax li ma waxoon am kon Cheikh Ibra Fall moo lijjanti mbirum sëñ moo dax Cheikh Ibra tam ñaari mbir lañ ko daan jëwee ñaari mbir te loolu sëñ yaaram mbay la ko laaj yaaram koo gis lu mu baax baax ñu ngi koy waxal dara sang yi yëpp am lu leen di waxal waaye liñ lay waxal ko gis ci yow waaye yow Fall yaaram luñ may jëwee mu ne ko ñaari mbir lañ lay jëwee mu ne ko ban ak ban mu ne ko ñi may jëw ñëpp nee nañ aw ma diine aw ma bopp Cheikh Rafal amul diine amul bopp lañ may jëwee mu ne Yaaram Mbaye mbaa du ngeen xeex ci loolu mu ne ko Fall danañ ci xeex ndax ku jël kilifa ak teg ko baat yu ñaaw ab dongam def ak yow ñun ciy xeex mu ne ko bu leen ci xeexati te danaa leen nettali li tax bu leen ci xeexati ñu ne ko Fall lu tax duñ ci xeexati mu ne diine ba ma gisee gul sëñ Touba kenn ëppale wu ma ko waaye bi ma gisee sëñ Touba xam ne sëñ Tuubaa képp baax diine laa jël sama diine tàbbal ci diine sëriñ Tuubaa moo tax amatuma diine mu ne ko bopp nag bopp moom ku ne war na ko am mu ne ko bopp na ku ko am su léegi da ngay yanu te man Cheikh Fall maag sama waa kër bëggu ñoo yanu moo tax aw ma bopp jël naa sama tuba jébbal sëriñ Tuubaa ma jeexale nag sëñ Masamba sëñ Masamba sëñ Masamba sëñ Masamba sëñ Moussa Ka dane alxuraan daal tudd ñaar fukki yonent ak juróom ñaar fukki yonent ak juróom yooyu Seydunaa Muhammad moo ci mujj waaye moo ci gën léegi nag njabootu Mamour Anta Sali ñaar fukk juróom lañ ak ñi nga xam ne ay góor da leen a jur teñ day góor sëñ Moussa Ka nag da leen di lim di leen mandaxeek da leen di lim di leen lim di leen lim ba egsi ci sëñ Masamba waaye ba mu egsi ci sëñ Masamba dane sëñ Masamba mooy caat mi semmal taaw yi Cheikh Ibra Diop mas arne faaqal afadila ahlal juudi wal karami Masamba Mbakke kasiral ilmi wal ikami in kaana asgara iqwaanul qadimi ma an fa inna immatuhu min imami min akbaril imami yow Seex samba yaa gën a néew ay at ci ñu bokk ak Serigne waaye yaa ëpp pas-pas moo tax Serigne bi féetalee xasida yi moo tax Serigne bi féetalee la boppam moo tax Serigne bi ne sëñ Masamba ay man fu ma nekkul ma samba di fa man moo tax tam mu ne ko ma koy wax waxal Masamba koy jox joxal Masamba ca njaareem ba am ñoo xam daanañ jóg di siyaare Serigne Touba yem ci Serigne Masamba jàpp ñoom ne sëñ Touba lañ gis sëñ Masamba nag daa tabe woon foofu laa jeexale daan wax ne du ma fanaanoo junni daan wax ne du ma fanaanoo junni baax na daan wax ne du ma fanaanoo junni nañ nii rek sëñ Massamba daan wax ne du fanaanoo junni ñu ne ko lu tax su ma fanaanoo junni yor junni bi xam ne danaa am dépense suba du ma xam ma sëñ Tuubaa di jëriñ su may tëdd damay bi tër ñi saay poos joxe li ma yor ba mu jeex ma fanaanoo yàlla ak sama sëriñ sëriñ Tuubaa su ma xëyee lu ma am xam ne yàllaa ma ko jox sëñ bii sant ndaw nii sëñ bi sant seen famille am na ci koo xam ne sëñ Masamba da tay tayle ci bitik am yu mu fa jëlal sëñ Touba mooy koppi xullar yi mu daan ataa yi mu daan ataaya waaw. bàyyam bàyyam kii su ndaw kii ci am naar ca bitik jëlal fa sëñ Touba ay koppi xallar sëñ Masamba mas nay ataaya am ku ñëw ñaan ko suukar si. sëñ Masamba maye suukar si baraada bi ne ci kaw di bax ñu ne ko Mbàkke luñ koy suukaree mu ne yàlla nga koy indi sëñ Masamba leb na ay xari jàmbur bañ kalaame ko bindal ko plainte waaye xam nga lan mooy firndeel nag ak tabam ndax looy wax da nga koy wax ci loo xam ne dafa tegu ci xam-xam sëñ Moussa moo ne sëñ Moussa dafa gana ji sëñ samba am fa ñetti fan sëñ Masamba di ko attaayaal di ko rayale xar di ko berndeel ba sëñ Moussa di dem sëñ Masamba yëkkati junni jox ko te booba junni la sëñ Moussa Kane xarit bi lay jariñoo kay lor asal jafewul xarit bi lay jox junni kay jariñ asal jafe na am naa xarit bu ma jox junni teg ci di ree tey wax ne lii bëriwul bi lépp xarit jafe na ma sàmba mbàkkee na cas ak junni bis ne ma am yàlla na ko sëriñ bi defal loo xam ne lii jafe na ren nag sëñ ma sàmba li ñu bis bi soxna si am na lu wax moom mën naa koo sax mi moom bi muy ñëw ci jàkka ji dajale na un million sept cent cinquante mille moom mi mbàkkee ana daam ana daam café ana daam kara déglu leen ma rek déglu leen ma ana daam kara ana xaalis bi daam kara yul xaalis génne koy séen rek waxuma nga ko nañ rek daam lu mu bëgg wax foofu daam kara mais lañ jox xaalis bi un million sept cent cinquante mille dajale na ko loolu nag bokkut ak délégation sëñ Massamba li ñu leen yónni loolu sañu ma ko wax waaye lii sañ naa ko wax ndax man la ko soxna si doon dajale loo waaye dama leen wax ne léegi ne sëñ Massamba danaan def ay cas ay di maye Cheikh Ibrahima Fall indil fii sëñ Tuubaa junni soxna si nag nee na képp ku mu ci jotaay bii dafa jàpp ne sëñ Massamba da laa boole ci jëf ci addi jaa ngi la lu ñuy nëbb kenn du ko wax. dugg rakk sama maam la. nee na rakki maamam la. kon defe na kon nee na defe na ne. fii li fi daje. fii li fi daje. buñ fi dajee. buñ fi dajee. waruñoo sikki saaka ne. nee na waruñoo sikki saaka ne. Serigne Touba ñu fii si. nee na Serigne Touba mi ngi fii si mbir. dafa am nag loo xamee ne. nee na dafa am loo xamante ne. daanaka wax nga ko. nee na daanaka wax naa ko. loolu du ma ci dellu. nee na loolu du ci dellu. waaye dañuy jël rek ci sëñ Cheikh Sidiya Baba. waaye nee na day wax rek ci sëñ Cheikh Sidiya Baba. mi nga xam moom la fekkoon fii. mi nga xam ne moom la sëñ fekkoon fii. ak ak Cheikh Sadbou. ak maam Cheikh Sadbou. yaa linsi wal jinni falaa tanaama. yaa linsi yaa linsi wal jinni. jinni falaa tanaama. falaa tanaama. alal si bii uddaale naama. alal si bii uddaale naama. kon moom moo ko seereen. nee na loolu moo ko seereen. moo ne ko giñ naa ne. nee na giñ na ne. jinne. jinne ak malaayka ak malaayka. yaa leen gën a kawe. daal da ngay niroog. yow daal da ngay niroog. ka bind sax ka bind sax. kon nag. ka bi ka bind. xam naa ana sëñ Sang Jaañ. nee naa sëñ moom ci ci téere boobu ci ngay dellusi. ci kaw ndax dana yokk pas-pas xam sëñ Tuubaa mooy kenn ci kànnel gi ma ko bëggoon a kennal hmm. waaye nee loolu la ma wax mooy nee na la wax mooy man doomi njaarim la nee na moom doomi njaarim la su ma faatoo su faatoo fa bëgg ñu rob ma fa bëgg ñu denc ko kon te foofee nee na kon foofee Serigne Touba bi mu liggéey ba liggéey bi bi mu nasaraan bi dana nasaraan bi génn naa leen ci waaye njaarim la saa jënd di fekk yére yi doon liggéeyal sama borom yére yi doon liggéeyal sama borom foofee la ko suul ci njaareem foofee la ko maanaam gabon la liggéeyee nee na gabon la liggéeyee gànnaar la boyoo waaye njaareem la yére waaye nee na yére yi liggéeyukaay yi nag njaareem la ko denc ci bokkatal mu baax te bokkatal mu baax te yàgg nañ faa te nee na moom yàgg na faa fay kon miin nañ ko bu baax kon ko bu baax a mbokk yi loolu moom mooy réaction yi nga xam ne moom moo jóge ci fële nga xam ne moom mooy ci ba gannaaw kàddu yooyu ngeen xam ne jóg na ko ñi nga xam ne ñoom ñoo yore liggéey jumaa ji dëgg-dëgg nag euh, nga xam ne ñoom euh, ñoom nag euh, ci seen maanaam xayma bi ñu xayma nee na lu toll ci ñetti millions moom moo war a kuule li nga xam ne moom mooy jumaa ji bu ko defee leneen li dana war a toll ci lu mot 65 millions de francs CFA kon nag ñoom ñu ngi ciy woo mbokki taalib yëpp ñu ànd déglu ay kàddoom. voilà. depuis bi ñu sëñ bi joxe ba léegi ñu ngi ci ñu ngi ci góorgóorlu ci def suñu kéemtalaay kàttan waaye nag ñu ngi ci tàllal loxo di ci woo képp koo xamante ni ma nga cee jàpp ak noo ci mën a jàppee ndax ku ñëw fii Sarsara xam ne Sarsara bërëb la bu naqaree ñëw waaye bërëb la bu naqaree indi matériel te ku ne xam ne ne juma matériel moo koy liggéey te matériel lourd moo koy liggéey tamit euh, ba tax na ñu ngi ci tàllal loxo ñëpp di si ñaan ñëpp ñu jàpp ci waaw ñun jamono yi ñu ngi ci phase coulage bi ndax instant yi ñu ngi ci éléments yi bu ñu noppee ci éléments yi ci la ñuy song incha allah placement éléments yi allah jëm ci coulage bi lépp yemb na. waaw jëm ci coulage moom bi nga xaajee ñetti xaaj benn bi rek moo yembagoon jamono yi muy wax ak yéen kaddu yooyu mbokk yi moom la ñuy wóyalee ba tey ci ziar ba ci xam ne mooy seyaan ba jóge fa daal di départ li nga xam ne moom mooy ci cérémonie bi waaye laata cérémonie bi di door am na ay mbokk yoo xam ne ni ñu ngi doon fii di ànd ak ñun ci liggéey bi bokk na ci euh, Serigne Ousmane Samb mi nga xam ne moom moo jóge ba Touba ànd tamit di kenn ci soxna si moom tamit bëral li nga xam ne moom mooy pas-pasam ak yéenam bi nga xam ne nii am na ko ci bërëb bi nga xam ne moom mooy Sarsara ma jot may am pas-pasu ñëw te yëgi ma ci am tam mooy at moo ñëwee rek maanaam da nga naa ay yëpp kat ci man ci Serigne Touba ci pas-pas til kulli fànnin rek ngir sama yëg sar ak sama gëm-gëm sar saara ne ci laay gën a kontaane man pour man wallaay tey lu nekk ma man la tam ñëw fii di jàmbat ma ko sax suñu xalaatee sëñ bi li fi daj ak mag ñi li ñu fi daj ñun dañuy asaga kon maanaam jàmbat waruñu man ne la ma doon jàmbat dama koy sant tey coono mu gën a métti ci laay gën a sant wallaay te lay waxtaan lu ma tibbee sama xol la tam mosuma jàmbat lu fa mu gën a métti laa laa gën a sant suñu borom taala soxna maam am ci pas-pas boo xam ne wax dëgg yàlla gisuma gisuma ko ci kenn waaw ak pas-pasam ak jëfam euh, day soññe ñun soxna si ñun bu ñuy wax Sarsara wala ñu yëngu Sarsara ginnaaw yàlla ñun suñ suñ suñ suñ borom ci soxna si la ko la ko jaarale. ba lépp lu mu nekk ñu ànd ci ak moom. xam ngeen dañu daan dem fële nga xam ne moom mooy Maatamulaana Maatamulaana di dëkk boo xam ne ni xaaj misri moo fa daan dalal gan yi euh, bu dalalee gan yi bu ko fee indi leen xéewal berndeel leen. bu ko defee ñu doog fay mën a ñaanalante waaye ren xat-xatu jamono bi ak fii réew mi toll ci wàllu couvre-feu moo tax bokk taalibe bëgg a a dellu waaye ki nga xam ne moom mooy Moulay teewal na ko ci cérémonie bi moom itamit yëkkati na ay kàddu yoo xam ne dox na ci digganteem ak soxna si ñi nga xam ne noonu la ñu taxawee euh, ci ziar bi ren bi ak lañ ci nam moon a amal yooyu yëpp ñu àndu teewlu ki xam ne moom mooy mulaay même chose c'est la même famille en plus am na ak dëkkaale parce que Matam daana ak Sarsara 12 kilomètres en plus euh, ñoo bokk euh, di dox ci ay tariqa donc euh, li lépp luy jege yooyu du jullit astama mbokku tariqa loolu man vraiment sawar naa ci dem ci ndax foofu la ñu ma tarbiyee foofu la ñu xaaj jaarale ne nit ñëpp jullit la ñu en plus bu ñu bokkee kenn ku ne am sa tariqa encore loolu day gën a renfermer Euh, li ma gis nag fii ci Sarsara vraiment daf ma doy vraiment mobilisation bi ma gis fii chaque année muy gën di mag muy law vraiment loolu am na lu ko waral vraiment sëriñ bi feeñu na fii dëggantaan euh, ñi fi nekk naar ñi fi nekk xam nañu yëg nañ ko mais ah, en plus que les Sénégalais commencent maintenant à ñuy ñëw fii muy gën di am ampleur chaque année man euh, première fois bi ñu fi ñëwee fekke naa ko alhamdulilah boobu ba léegi ça fait 17 ans alhamdulilah boobu ba léegi mi ngi gën di law rek di di jëm kanam cette année on est après 6 000 c'est la 17e édition on est après à 5 000 personnes yoo xam ne ñëw nañu fii vraiment nekk fii di leen di tertu di leen di xeetli di leen di dimbali en tant que nitu yàlla vraiment loolu man dinaa ci kontaan te sama sëriñ yi dina ci kontaan di leen di teral chaque année ñuy ñëw vraiment loolu àq la diggante mbokk jullit ak mbokk jullit surtout ñoo bokk lépp alhamdulilah mbokk yi dañ koy daal di jeexalee ci li nga xam ne moom mooy ay ay waxtaan yoo xam ne nii moom moo jëm ci cérémonie officielle bi cérémonie officielle bi ay kaddu jëm na fa kaddu yoo xam ne nii lenu war a def maanaam ngir mën a yaatal liggéeyu Sar saara waaye tamit li nga doon ne pour yaatal li nga xam moom mooy jàkka ji la fa génn ci ay koppar te soxna maam Issa Mbacke ak Euhlou Café génn ko fa ñu ànd teewlu kaddu yooyu noonu teewlu cérémonie bi boo ko defee mbokk yi cérémonie bi xam naa ne moom mooy tëj li nga xam moom mooy édition 17e euh, édition ziar Sarsara bi euh, laata boobu nag euh, mbokk yi Cheikh Abdoulaye Dieye ci ab tënk rek dañu koy defal mu résumé ñu tuuti rek ci li nga xam ne moom moo fa am ci ziar bi ba nga ko defee ba pare sëriñ bi Euh, jeex na 17e édition ziar Sarsara euh, mu nekkoon bés boo xam ne ñi ngi ko dippee woon ma Massamba Mbacké li fi jëp ci ay kàddu waaye liggéey bi nga xam ne nii ahlu kafe def na ko ren ji ndax mën nga ñuy del siwaatal ci bis bi waa jërëjëf sëñ Sidi di wax alhamdulilahi rabbil alamin di leen sant nag te di leen gërëm ci liggéey bu rafet bi nga xam ne am na mbokki taalibe yu toog fu sori eh, te jot nañ ko comme ni ñu ko jotee comme ni ngeen ko waxee nag 17e édition bi jeex na euh, liggéey bi fii ci Sarsara des na nag euh, cérémonie de couverture bi ñu war a defee ci maanaam palais des congrès waaye li ñu mën a tënk mooy alhamdulilahi rabbil alamin ndax ren dañ ko tudde sëñ Massamba te sëñ Massamba dafa bari ay ngëneel ci Serigne Touba moo tax ngëneelam yooyu feeñ na ci lépp ñu tàmbalee ci jàkka ji nga xam ne euh, dañu ko doon liggéey ku ne xam na ne at yi ci liggéey bari na waaye dafa ni suñu dajalee yooyu yëpp li ñu def toll na ni at weesu yëpp loolu benn taxaw seetlu la boo xamante ni bi mën nañ koo jàngat euh, benn bi ci des sam mooy euh, kilifa yi nga xam ne ñoo fi daan teew kilifa yi itam buñ ko xoolee fulu na ci kër yu bari ci njabootu Serigne Touba yi waaye délégation yi nga xam ñoo bàyyi ko ci biir Mauritanie loolu tam mën nañoo seetlu ci ziar bi ne yokkute bu rëy rëy am na ci waaye tam ci délégation yi nga xam ne ñoo fi ñëw bàyyi ko fu ne ci biir région yi kon loolu day wane ne eh, kuréeli Sarsara yi ngi gën a yaatu ndax tey soo xoolee eh, mocce réew mi maanaam boo xoolee juróom-ñaari région teew nañ fi eh, te danañ wéyal liggéey bi ba fexe ba Sénégal fukki région ak ñeent yëpp mu ay délégation yoo xam ne dañ fay bàyyeekoo di ñëw Sarsara waaye tam ku ne xam ne taxawaayu soxna Mame Issa Mbacké ci liggéey bi ni ma ko daan defee at mu jot Euh, ren dana ci bisu ma Massamba bi bëgg na lu mu daan def rek mu def lu ko raw moo tax mboolem li nga xam ne daana ko joxe lu ci ne da koo doublé ci anam yëpp ngir bëgg rek euh, wane taaru ma Massamba ak wane ne tey sëñ Massamba mi nga xam ne moom la ñu tudde bis bi euh, mooy maamam waaye tam lépp lu fi nit def rek moom nga ko defal tey ndax moom moo waroon a gàddu lépp sëriñ Massamba kon na képp ku fi ñëw moom nga dimbalee jàppale ko ci liggéey bi waaye def na ci kéemtalaal kàttanam loolu daal mën nañ ko jàngat muy taxawaay bu rafet boo xam ne tam am na ay tiit am yu bari yoo xam ne suñu borom dimbale nañu ndax réew mi ñu ngi ci couvre-feu ñu ngi ci tawat ak yéen ca euh, de congrès foofu la ñu tëjee yëf yi euh, ci maanaam cérémonie bi ci teewaayu kilifa réew mi kilifa gox bi ak tamit euh, kilifa yi yoon bi ñëpp incha allah rabbi daañu ànd ak yéen kon mbokk seen ziar sarsaara édition 2021 jeex na fii ci sarsaara ci digganteem ak Mauritanie toll ci téeméer kilomètre ak juróom-ñett fukk juróom buñ ko xayma ak ci dimanche li nga xam ne moom moo fi xewoon yëpp mbokk yi di leen dig daje ci yeneen jotaay ci caméra bi ki nga xam ne moom mooy Fallou bi Bekkaay Ndiaye kaddu gi Sidi Diakhaté jaa ngeen jëfati hamdi wa sukri liman kulli bihi sara law ridan duna shuqtin inda sarsara